Dakar notre bu baax a baax di kontaanati ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun. fi nga xamante ne nag mooy ci université Cheikh Anta Diop bataille bu méttee métti moom moo fa amoon démb ci guddi à partir ay zéro heure. ñi nga xamante ne mooy association des étudiants pour le développement de la Casamance ñu leen di wax AEDC communément appelé Kekendo ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy mouvement Ndefleng association culturelle des Sérères ñoom ñoo fa doon jàppante jàppante bu méttee métti ci loolu nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiitee lii nga xamante ni moom mooy université bi ci la ñu daal di woo ñi nga xam ne ñooy police ngir ñu ñëw mën a régler problème bi nga xamante ni moom moo am foofu nga xamante ne moo ci temple du savoir ki nga xamante ne nag moom mooy recteur université Cheikh Anta Diop bi ginnaaw bi mu jotee ci information yi daal di yëg mbir mi nga xamante ni moo am ci biir université bi ci la daal di autoriser li nga xamante ni mooy police mu daal di dugg ci biir campus bi ngir mën a régler situation bi nga xamante ne foo ko natt rek. weesu na ko li nga xamante ne nag moom lañ fa constaté mooy diggante jafe-jafe bi am ci ñi nga xamante ne ñooy kikendoo yi ak tamit ci waa Ndefleng am na si ay nit yu si am ay gaañu yu jéggi dayo ba loolu sax moo waral li nga xamante ni moom mooy ambulance bi daal dina fay génn ay yoon ngir jël si fa ñenn nit yi nga xamante ne am nañu ay gaañu gaañu ci li nga xamante ni moom moo am foofu nga xamante ni mooy ci université Cheikh Anta Diop njàngat biñ ci am nag mooy yenn déclaration incendiaire yenn wax yi nga xamante ne dafa irresponsable bokk na ci liy indi jafe-jafe di féewaloo ci diggante xeet te yàgg nañ wax ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar la police parce que en ont marre. Des, euh, voilà, voilà, la police est là à l'intérieur de l'UCAT pour faire des patrouilles. Les étudiants en ont marre de voir euh, ces, ces, ces, ces violences. Violences, ils ont bir UCAT. Il y a des étudiants qui police moo bëri doole c'est ce qu'ils sont en de dire tous ñoom ñëpp loolu ñuy nekk di wax nii. La Lune TV, plus proche, on s'entend mieux. asalaamaaleykum mbokk internetu Feeling Dakar dalee na jàmm ci seen jàngatu bis bi jàngatu bis bi nekk tey dañ koy daal di dooree euh, accentuer wu ci li nga xamante ni moom moo xew démb ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru euh, vers vingt deux heures nemmeeku woon nañ fa jàmmaarloo bu méttee métti entre deux groupe ethniques ki nga xamante ni nag benn étudiant bu bokk ci Ndefleng euh, groupe Ndefleng ak ki nga xam ne dafa bokk ci Kekendo ku wax groupe Ndefleng ak Kekendo nekk xam ne deux groupe ethniques yoo xamante ni dañoo nekk foofu ci université Cheikh Anta Diop bu Dakaaru donc boobu nag taxoon na ñu bëree bëri daal di si jëlee ay gaañu gaañu yu méttee méttee ba tax na police bu point E ak bu quatrième arrondissement ñoo ci mujjoon a def tànk eh, jàmm ba li nga xamante ni moom mooy situation bi mujjee apaisé wu waaye tamit bu ñu defee li nga xam ne moom mooy remonté rek eh, dimanche 21 février dernier nemmeeku woon nañ eh, waa ñi nga xam ne ñoom ñooy waa kuddu daal yu bare bari foofu ci campus social bi donc li nga xamante ni nekk mooy question bu nga xam ne moom lañ nit yi di posé wu à savoir que est-ce que fi nga xam ne moom mooy la temple du savoir comme ni ko gënoon a xamee euh, di université Cheikh Anta bu dakaaru léegi dem naa dem a dem ba soppeeku nekk champ de bataille euh, loolu nekk euh, mooy tegtal que ni université bi léegi dem na ba amatul li nga xam ne moom mooy sécurité donc insécurité totale lañu fa nemmeeku donc léegi question bi nga xam ne nekk moom la euh, parents yi euh, di posé wu à chaque fois mooy que ne est-ce que nekk euh, am nañ tiitaange donc ak naqar di bàyyi seen ay doom ñuy fréquenté fi nga xam ne moom mooy université donc sàkku xam-xam moo leen fa yóbbu woon donc bu ñu demee ba gis fa ñu fay créer ay groupe ethnique di fa créer di fa semer la pagaille ak di fa def li nga xamante ni moom mooy ay jàmmarloo ak ay insécurité est-ce que tey jii xel teeyut donc est que jarul Euh, les autorités étatiques ñi nga xam ne ñu jéem ci dugal seen ay loxo nekk daal di jël li nga xamante ni euh, moom mooy université en mais daal di fas yéene defaraat li nga xamante ni moom mooy réputation université bi mbokk internet Feeling Dakar li lañ leen indiloon tey ci li nga xam ne moom mooy jàngatu bës bi ñu ngi leen di jox dig tajee ci yeneen i jàngat incha allah. <laughs>